وهب لنا به الخير والسعادة والبشارة والأمان ولا تختم لنا بالشر والضلالة والطغيان ونبينا قبل المنايا من نوم الغفلة والكسلان وأمنا من عذاب القبر ومن سؤال منكر ونكير ومن أكل الديدان وبيض وجوهنا يوم البعث وأعتق رقابنا من النيران ويمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل ميزاننا بالحسنات وثبت أقدامنا على الصراط وأسكمنا وسط الجنان وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأكرمنا بلقائك يا ديان اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذاب غمومنا وقائدنا وسائقنا إلى جنة النار النعيم اللهم اجعله أنيسنا في الوحشة ومصاحبنا في الوحدة ومصباحنا في الظلمة ودليلنا في الحيرة وموقظنا في الفتنة وعصمنا به من الزيغ والأهواء وكيد الأعداء يا رحمن يا رحيم اللهم اختم بالسعادة آجالنا وحقق بالزيادة آمالنا واقرم بالعافية غضونا وآصالنا و واجعل إلى رحمتك مصيرنا ومآلنا واصبب سجال عفوك على ذنوبنا ومن علينا بستر عيوبنا اللهم اجعل تقواك ضادنا والثقة بك زخرنا واعتقادنا وأمن من الجوع والخوف بلادنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه لروح سيدنا سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام ولأرواح آبائه وأمهاته وأزواجه وذرياته وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ولأرواح آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا ولأرواح جميع المسلمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وإمام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 الناس إلى الناس من شر وساد خناس الذي وسوس دم سلاسينا محمد الفاتح لما أولو والخاتم لما سبق ناس يحيق ولا إلى صراط متهم ولا دم سلاسينا محمد الفاتح لما أولو والخاتم لما سبق ناس يحيق ولا إلى صراط متهم دم سلاسينا محمد الفاتح لما أولو والخاتم لما سبق ناس يحيق ولا إلى صراط متهم ولا يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا كافي يا كافي يا كافي يا كافي يا كافي يا كافي يا كافي يا كافي يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما sallallahu taala alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin wa salamun ala mursalin salamun ala mursalin leer bal yan ko lan nangu yan nañ yàlla dollee jàppale ñu yàlla maye xéewal yi nee na bi ñu yàlla maye xéewal yi ñu fekke ko te tal ko ñu fekke ko te tal ko dañoo bëgg defal ñaan. nee na dañoo bëgg a defal ñaan. xéewal yi ñu xéewal bi ñu yàlla defal. mooy ñetti xéewal yi defal. nee na ñetti xéewal yi nga xam ni moom la sunu boroom defal ñu ko. yàlla musal leen. yàlla musal leen. aar leen. aar leen. bàyyi leen ba ca kanam ba ca kanam kanam. bàyyi fi ay waajuram. bàyyi fi ay waajuram. bàyyi fi ay maamam. bàyyi fi ay maamam. bàyyi mbokk bàyyi fi mbokk yi. ak képp ku ak képp koo xam ni teew na fi. yàlla bàyyi leen fi ba ca kanam a kanam a nee na bu ñu defee ñaani ba pare. soo ko euh, waxtaanu kàddu yi. na bu ñu waxtaan bu ñu defee ñaan ba pare ñu jël ku ci nekk ku bëgg a jël kàddu jël kàddu tamu gàtt te xam ni jamono ji moo ko tënkee noonu. nee mu ñu jàng fatiha ayatul kursiyu xul huwa allahu ahad xul auzu bi rabbin falax xul auzu bi rabbin naas benn peru salaatul fatih ñu def ko hadiya yonti yàlla muhammad salallahu alayhi wa sallam ñëpp teewlu من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والهادي إلى صراط المستقيم sëñ Mbaye Cissé tëjal ñaan yi Mbaye Cissé Mbaye Cissé mu ni nga tëj ñaan yi rabbana wa taqabbal du'a yi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin sallallahu taala alayhi wa sallam di sant nag sunu goro bi di Ibou ak way juróom yi toog ndax wax dëgg yàlla ki ko jox xele la te jigéen doomu aadama matul waxuma laa jigéen ba noppi di xele mu yor ko yor bu rafet ba yàlla indi dogalam indi sabab bi andil nu xéewal yi ci barkeb Seydina Muhammad kon amuñu musuñu am bi mu fi ñëwee ba tey lenn lu nu naqari mbaa mu ñëw wax fa lu xam ni jiyoo naag bànneex ba yàlla dogal xéewalam yi kon ñoo ngi koy sant bu baax ñoo ngi leen di ñaanal gudd fan gu ànd wér ñaan yàlla mi nga xam ni mooy dimbalee doomam yi yàlla na yàlla def ci barke ba balaa sonn ñu aw ko ci lépp ci barke alxuraan seen maam yi fekke ko soxna yi fekke ko ñu fekkee njëriñu njaboot gi yëpp ñoo ngi gërëm sëñ bu baax di ko jox wàccukaay wàccuwaayam di sant bu baax ndax saa yu ñu leen dégloo saa yoo ubbee télé mbaa rajo dégg ci déglu leen njariñ nga ci jële te loolu ndimbalul yàlla la ndax ki la wala wax ci sa diine ay kàddu yoo xam ni mën nga koo jariñoo ba sa diine rafet war nga koy sant di ko ñaanal fu mu toll kon yàlla na yàlla yokk gudd fan gi yokk martaba bi yokk xéewal yi ci barkeb Seydina Muhammad sant nañ leen bu baax sunum xel dal na alhamdulilah jërë jëf asalaamaaleykum wa euh, ku mel ni si Pa si moom it noonu dañ koy sant bu baax di ko sant di ko gërëm ndax Pa Moussa moog Ibrahima ñi nga xamante ci marché ba place bi Ibrahima nekkoon fa la moom ba ci looloo ta sax xamante Ibrahima ak maam Jaara daanaka si moom mu jàppee ko jàppee doom di ko jubbanti su nekkee ci lu mu nekk mu ne ko nii la di ko dolli kon soo amee mag mu ñëw la taxaw noonu ci mbirum marché ak marché ni mu doy waar loolu sens la ba lii bi ñuy wuti jaara yàlla xam na ni moom lépp moom la A ba Z moom la lu nekk daj na ko ci jël na alalam def si jël na temps def si te duñ ko yëg di ci wax fu mu toll lu rafet lépp moom moo ko dox ba àndi ko fii moo tax tey kàddu gi moom tey bisam la moom moo war a jël kàddu wax si mooy ne ko sant bu baax di ko ñaanal mais kàddu gi yëpp daal moom la moom moom moom kàddu gi tey moo bis bi moom bisam la ah di sant dëkkandoo yi bu baax ndax su ngeen gisee mu mbir mi xaw a oyofe nii ñun la ndax euh, ni mu demee nii ñun bëgguñu woon mu yaatu dañu ne woon nañu xëy rek wàcc kaamil noonu saraxe def sarax daal ku nekk yeewu mais comme mbiru jigéen ak ay xale xam nga rek ni nga koy bëggee noonu ak fi ngay xalaatee peut-être day xaw a wute tuuti te doo leen bañal yenn yi moo tax ñu oyofal ko nii bu mu oyof mais suñu bëggoon mu xumb wala mu yaatu fii kenn du fi xaj tey kenn di sant nag bu baax suñuy goro ndax it ñoom si tàmbali ba sonal lu si dara ba léegi ñu ngi ñu ngi taxaw suñu njaboot di taxaw jaara di taxaw Ibrahima mosuñoo am lu ñu naqari si eh, jaara mosuñoo am lu ñu naqari suñu suñuy goro dëgg yàlla waaw kon jeex na jaara euh, dëgërul bopp jaara neex naa waxal te fonk na ki man fii saa bu ma fi ñëwee moom mooy gàddu porte ndox ñooy jox ma fu mu mënti nekk ba bi mu euh, nekk jigéen mu sonn lool lu mu kii su ko fekk lu mu toog lu mu lu mu métti métti si moom dina jéem a ñog-ñogi jóg dem andi ndox jox ma loolu ba ñeneen ñi di ko si roy te moom moo leen fi fekk te moom moo leen fekk ñoom ñoo ko waroon def bu ko roy ci même loolu si moom lañu ko jànge ba su ma ku si nekk da loolu moom jaara la ak yeneen yoo xam ne mënoo ko mënuñu ko lépp di ko lim dañ koy ñaanal yàlla rek yàlla na yàlla yàggal euh, taxawaay bi ba lépp li nga xam ne liggéey na ko fi yàlla na fekke njariñ li waaw euh, ku mel ni ndaak aussi moom mënuñu ko bañ ñu tudd ndax il faut ñu tudd ko ndax moom moo yor jaaram moom mooy suñu gorom mag mais lépp da ko rafetal lépp lépp fu mu toll mi ngi nemmiku lu mu am mi ngi koy yónnee na waaw mi ngi fi ñëw di fi nemmiku bàyyiwul dara waaw goro bu mel noonu tamit dafa jafe boo toll war nga koo mën a wax waaw ñun nag ñoo ko bëggee nii ak situation bi ni mu demee mais wax dëgg yàlla suñu bëggoon mu demee neneen ni dina ko demee waaw ñii daal lañu ko bëggee woon moo tax den jégalu bu baax a baax a baax su kàddu gi nag amee lu manqué ngeen jéggal ma ko xam ni nit matul am nañ yéene tudd ñëpp am nañ yéene wax li ñu fi dund lépp mais xëy na temps bi xat na te it euh, nit matul la da nga leen di ñu nit bu ne nee baax na ndax dina ana ku ko yar te xaadim mi yar bu ne moo ko def ci maam jaara yor taxawu na ko. Mm, mm. kon nag Xaadim Diouf ñoo ngi lay sant bu baax di la ñaanal yàlla. yal na yàlla guddal soo fan te wéral say cër. moom mooy bàyyi xa mooy bàyyi jaara lu ne def na ko ci jaara. Mm. nu jaara mel rek moom mii la. kon noo ngi koy sant baa di ko gërëm. kii nag sunu xalifa bu waxee ba pare sax bu nu ci teg baat. waaye Xaadim mi dañuy da kenn dañu mun koo bañ a sant. jërëjëf Diouf. maa ngi nuyu bu baax sama doom suñu sëriñ bi ma fi fekk muy sëñ Abdourahmane njigéen mii toog yal na gudd fan yal na wér bu wéree yal na ami taalube yàlla bu ko kenn ëppale ci alaaji Modou Ndiéguène ak alaaji Ahmad Baro ak Cheikhu Tidiane ak Cheikh Seydi Hadji ndax ñoo ñooy maam ak Serigne Touba it nag yàlla bu la ci kenn ëppale ndax yow bala may wax dara damay njëkk a wax ci yow ba pare danga amub yar lool gën a yaru dégg maam ci famille bi lool yàgg si sa njëgeen ca ñëpp a ko wax seeni baay wax nañ ko seeni i maam wax nañ ko moo xewle woon démb kër saara ñoo fa bokk yendu ca fi ma njëkk a toogee nga ma njëkk a terale yaa ma njëkk a jox xaalis borom gàmm ga kon yàlla nga gudd fan te sa maamam de ko wóolu woon loolu nag ana yax ma njëgeen da wóolu ndax bu jàngee kaamil ba pare mu ne Abdourahman jàngal xatmu bi buy julli mu ne wax kaay jiite ma loolu day na alaaji mun jigéen ko koy jiite xam nga ne wóolu na la ñu ne déetawaay buy watu mu ne ko kaay wat ma boppam bi kenn du ko laal ku dut moom ca moo jur sa baay sa baay mooy taawam alaaji daam alaaji daam di nitu yàlla piir yàlla na nga gudd fan yàlla la yàlla defal jàmm yaa baax yaa yaru yow askan wi di nga maam am nga ci valeur ndax ku tudd ba bërki ba bërki bu yàggu rek ca dëj ba ca newoon ca këri kaw ba ki nga xam ne di mooy sarak di wax ki nga xam ne mooy euh, kii euh, kii Sall Njëgeen vie Sall Njëgeen danay ñaar ñi ëpp yar ci kër gi ca yow la njëkk a jël Abdourahmane ak Cissé Njëgeen ñoo ñoo yéen a taxaw korook dëj ba ci ñu teg ne ñetti nit den di jullee fekk maa ngi koy waxtaan de ma ne ñi yoonte ñu ñoom mu waxaat ko te man lu ma wax rek nit ñi lañ koy at jigéen yàlla nga fi yàgg yàlla nga sut sa baay baaw fan at ya alaaji ahmad baro amoon ak alaaji moodu jigéen yàlla nañ ko boole jox la ko ak Moussa Baye jërëjëf ah ñuy sant yàlla bu baax nag di wax alhamdulilahi rabbi alamin ndax Moustapha mii dañoo def baay jiital ci nag Moussa mii Moussa mii di sama xarit di sama soppe ñu bokk baay bokk maam comme ni ma ko bokkee bàyyi kii ndax suñu maam yee àndoon de maamam Maxtaar si Alaaji Ahmad Baroy maam mooy sëriñam waaye nag Cheikh Seydi Aji Malick la la yor deretam Alaaji Malick ak maamam ñoo bokki maam. ba mu bëggee jël werdu salaatu faatiha ñu ne ko demal ci alaaji Ahmad Baro bu ñëw ci man de alaaji Ahmad Baro nga fa deenu may na salaatu faatiha man na ko yelloo na ko ci dégg nag dégg maam yéen nekkoon fii di maase di yëpp ak sama maam mu ñëw mu jox ko si werdu salaatu faatiha mu nekk ak moom ak alaaji Ahmad Baro bàyyi aali seeg bàyyi ma xeet ak ñoom ñëpp alaaji Ahmad jege nañ seen sëriñ te dereti Cheikh Seydi Hadji Malick lañu muy ku baax si yal yàlla guddal sax fan mu téye nag Moustapha Mbaye miit tapoo ko jàpp ko ba koroog bi muy ñaani soxna moo dem ñaani moom it ñu taral ko ay teraanga moom it muy ko baax nag yal na yàlla guddal sax fan ñun sat nañu yàlla bu baax di julli ci yonent yàlla Muhammad salaahu salaam ndax yow koo àndal rek sopp nga ko bëgg nga ko man maay say ñeeño waaye ba bàyyale nga ma doom sa taaw bu jigéen man nga ko njëkk a bàyyale ma maye ko te suñu maam yi ñoo àndoon suñu bàyyee ànd kon nag yàlla la yàlla fay ba pare nag ndaw si nga xam ne mooy sëy ci kër gi baax lool jabari Moustapha yaru lool ne ci kër gi di sëy nag bëgg Moustapha ca ñun ñoo ci doon dox di ci waxtaan ba yàlla may ko ko kon nag ruslowuñu njabootam gii mu am nag yal na barkeel ca bu barkeelee yal na fekk asil dawaaman madaxa nuxbati asimi tanaalu allazi tabgi min alfatxi walyusri bi fasta'il ya abdu ma dumta xaadiran fa matxu rasulillahi min azami zuxuri mam abdu nee na bii naa la ma naa la rijaalu maratiban min almalik alallaami jallat an alxasri fa matxu rasulillahi ahmada uddati mahabbatuhu fi lxalbi kannaqsi fi saxri أيا منبع الخيرات يا سيد الورى وخاتم نزم الأنبياء ذوي الخدر فنحن عند الباب يا سيد الورى بجاهكم نرجو الشفاعة في الحسر أتعرف ذاك النبي محمدا تتيب به دنيا وخرى هو برزخ ممنن يا ولي ونصرتي وعمادي وغياسي في القصر يوم اللقاء مام عبدنا فاقبلوا لي محبتي يا شمالي وملاذي في شدة والرخاء moom nee na fa rabbi maali rajaun siwaakum wa bil faydi xaatimil awliyaai sayyidil mursaliina dil baraaya li ridallahi waalidi zahraai hubbu taalil muznibiina najaatun wa amaanun min hawmi yawmi lixaa'i هاج شوقي لحب خير البرايا مزهم اللطف أكرم الكرماء إن حب النبي حالة لحمي وعظامي ودم دون ريائي أكرم به من سيد الحمول أزى البرايا والد البتول أكرم به من شافع المشفع عند استداد الهول يوم الفزع أكرم به أكرم بمن ملجأ الرحيم أكرم بمن ملجأ الكريم ما مبدنا هذا سوقي من برايا والده ولا يخيني إلى البر والعلاء الصح الحكم يا من يرى يا صيد الكونين يا علم الهدى يا فارس العلا أحمد الأحوال والكلام تبارك الله ñu defal ñu teraanga yu bare bari ñooñu sëriñ Abdou dina ñëw ci ñoom di gërëm Ibrahima mii dafa am loo xam tabaarakallaahu man ak moom seq nañ ko seq nañ tabaarakallaahu euh, mu may mu may mu may ñawal yére di ma liggéeyal tey saa yu ma ñëwee rek du ma ko fay moom moo may ñëw ba sama kër jëral ma mesure dam ñawal ma moo ma ko indi laatal kon loolu oyof teem la teyit tabaarakallaahu nit boo ko bëggee xam dañ naan xoolal baay ba kon baayam moo mel noonu moo tax mu mel nii tabaarakallaahu ñun ñu ngi koy Ibrahima ñu ngi lay gërëm bu baax a baax a baax tamit tabaarakallaahu kàddu yi sëriñ usmaan moo fi waroon a teew mu sëñ Muniru alxuraan sëñ Abdou mi sëñ Abdou mi yaakaar naa ni lépp loo xamante ni da koy santaane ci kër gii sëñ usmaan la koy sant moom mooy ànd ak moom ci lu bari ñu koy liggéey waaye tey jii dëkk bi dafa xat. nit ñi dañoo dem Gàmbi ñu ne man mi démb Kaolack laa yendu damaa dem Kaolack dem Diourbel dem Kër Saara bi may dugg si fii yaakaar naa ni une heure du matin jot na kon loolu bi may xëyee tamit dakaar laa jugee de Dakar laa jugee dem dem Diourbel dem Kaolack soo ko dikkaat ci kër gi ndax it Ibrahima mii moo tax ma ñëwaat Thiès waaye damaa naroon a jubali dakaar waaye moom mënuma tànqamlu ay mbiram lu mu xaw naa sax biddanti waaye tamit Ibrahima mënumaa tànqam lu ay kiyam béy di tamit ñu ngi koy gërëm ku baax la defakatu teraaga la ndaxit it mii tabaarakallaahu saa yu ko ñawalee mbubu jox ko Ousmane dana ma ko wan. kon nit bu fekkee day def lu baax dañ koy wax ne bu ëllëgee bu mbokk yi xewlee muy suñ baay safaa danaan ñi bu ñu yàkkamti nit bu defee lu baax biir xewam la ab nañ ko ko waxal ba mu baax ba bu ëllëgee mu mën a góorgóorlu continuer ko. moom moo xewle Ibrahima moo xewle bay di mooy magam ñëpp a baax famille bi famille bi boo leen gisee rek xam ni ñoom amuñu benn dañoo yaru muy magi Ibrahima yëpp man xam naa ñëpp ku la ci gisi day fonk te ñëpp ci kër Alaaji Ahmad Baro lañu la ñu wékk ñoom ñëpp fi lañ béeg ñii ñu ngi kër sëñ Omar ñii ñu ngi kër sëñ Ousseynou ñun ñëpp xam nañ leen kon tabaarakallaa kon sotti ci ak def ci la waaye kër gi laa xarwa parce que kër gi kër la goo xamante bi ni muy sunu maam sunu maam ñun ñii li ñu daan def dañ daan seetaan si fasam ba maam Omar Mbaye dañ daan seetaan si fasam ba te bu gàmmu jotee lu ñuy gàtt gàtt xam-xam nañu moo daan roñ séeseeg yëpp dimbali alaajax man njegeen ci gàmm gi ndax alaajax man njegéen amul woon lu dul gàmmu mawludu Seydina Muhammad ku ko ci bëggaan a bégle da koy ñëw fekk si ko ci kon loolu moo amoon sunu baay yi nga xam ñoo sant Fall muy sunu baay yi nga xam ñoo bàyyi Aline Fall ak góor gi nga xam ñooy toog baay Ibrahima Fall ñoom ñëpp ñu ngi leen di gërëm waaw loolu sëñ du moo ciy dugg tabaarakallaahu loolu duma ma ci dugg kàddu yu gàtt laa ci doon def wasalaamaaleykum wa rahmatullah ñu déglu sëriñ Abdou moo yoroon jaar borom këru Ndak Mbeng ma Ndak nit ku baax ndax sëñ Tuubaa daa wax ku la jur ku la yar la lay wax te jaar Ndak yar na ko yar bu wul am diine ndax Ndak kenn gënu ko waaye Ibrahima da nit ku baax xale bu baax boo bu am bu am boo gisee kër gi sama tànk bi soog a li ko war ci moom mi rek ndax buñ ko joxoon tey jaara tey jii ñaari fan ñett ñun ñu di jàppal bàyyi ko dinaa fi bari samay tànk waaye moom nit ku baax la jubil ak xam ko wallahi azim ni muy soog a tàmbali ci yëf damay ko kii mooy bàyyam wallahi azim grand bés bi ku baax la moom it ndax daa mel ni mooy bàyyi Ibou Mbaye te moom laa ko tegoon sax wallahi am ci commencement bi maa ngi jéggalu lu baax ci kàddu yi ndax saa yu màggal ñëwee mu ñëwee kër ga indi taraangaam yi Ibou Mbaye fajal la xëy yow di gañ man damay sama ko xool jàpp julli wird lu mu soog soog soog def soog koo def wala ak lu rëb rëb rëb allah ko ba du ko fekk ci lan bu mbay mi pour julli akal la bu mbay maa ngi lay ñaanal yal na yàlla guddal saw fan sa doom yal na yàlla teg loxo barke yonent maa ngi sant bu baax nag gërëm naa la sant naa la. mu ngi leen di ndokkeel. ci teraanga ji ñu yàlla baaxe tey. teraanga bi ñu yàlla ñu yàlla defal. yal na yàlla dundal leen. yal na yàlla dundal leen. yàlla musal leen. yàlla musal leen. yàlla aar leen. yàlla aar leen. waxtaane borom xam-xam. def leen ay borom xam-xam. def leen ay borom ñëpp. di ñaanal yi. di ñaanal bu baax way jur yi. way juru xale yi. way dundal leen. yàlla leen fi. maamu xale yi. maamu xale yi. yàlla dundal leen. yàlla leen. bàyyi leen fi. képp koo xamante ne mbokk la ci xale yi. képp koo xamante ni mbokk la ci xale yi. yàlla dundal leen. bàyyi leen fi. képp ku fi ñëw rek. képp ku fi ñëwit. yal na yàlla dundal. bàyyi la fi. maanaam eh, nuyoo bi. nee na nuyoo bii nag. dañuy commencé ci bunt bi. dañuy commencé ci bunt bi. suñu mag Samba suñu mag Baye Samba Mbaye. mooy borom kër gi. mi nga xam ni moom mooy borom kër gi. yàlla dafa def. yàlla dafa def ni. suñu wayjur yi. suñu wayjur yi. suñu daam njëgën. suñu baay yàlla xajeex daam njëgën. moom mi nga xam ni moo nekkoon taaw suñu maam Alaaji Mouhamed Njëgën. moom ak suñu maam Si. ak suñu maam Amat Si. ak suñu maam Omar Mbaye. suñu maam Omar Mbaye. mi nga xam ni moo sancoon kër gi. maam Amath si. nee na suñu maam Amath si. mooy maamu Ousmane Njegen. mooy maamu Ousmane Njegen. moom mii nga xam ni moom la suñu mag Serigne Pape Cissé Njegen mii doon wax mu yore daara ji. ñetti ñooñu. mu ni ñetti ñooñu. dañ daan ànd. dañ daan moom baayam suñu maam Alaaji Daam Njegen. fu mu mënti dem. fu mu mënti dem. muy ngénte. wala dëj. da daan ànd ak suñu maam Amath si. maam Omar Mbaye. maam Omar Mbaye. lépp loo xam ne liggéey la ci kër gi. lépp loo xam ne liggéey kër gi. dafa amoon sareet. dafa amoon sareet. moo daan garder bagage moo daan garder bagage yi. indi bagage yi. indi bagage yëpp. delloo bagage delloo bagage yëpp. bu takkusaan jëm timis. bu takkusaan jëm timis. ñoom ñett. ñoom ñet ñu daje ca jàkka ñu daje ca jàkka ja. toog di waxtaan. toog di waxtaan. ba timis jot. ñu julli. ñu kenn ku ne daal di dellu ci sa kër. suñu ñetti yooyu nag. mu ni suñu ñetti maam yooyu. wóllëre boobu dañ koo sàmmoon. wóllëre woowu dañ koo sàmmoon. biñ fa tamit. biñ fa jógee ñetti njaboot yi. ñetti njaboot yi. sàmm wóllëre boobu. googu ba tey. njabootu suñu daam. suñu maam Alaaji Daam Njigéen. sàmm wóllëre gi. gi. maam njabootu suñu maam Omar Mbaay. Samba ngi toog. suñu mbaay Samba Mbaay mi ngi nii toog. suñu maam ëmmat si. Serigne Souleymane Fall bi gaañu. Serigne Souleymane Fall bi gaañu yal na yàlla leeram. daf daan wax Pape Fall. daf daan wax Pape ñu ko daan wax Pape Fall. ñu ko daan wax Pape Fall. ñoom ñetti ñii. ñooñu. ñooy sàmm wëllëri gi. ñoom ñooy sàmm wëllëri gi. loo xam ne xew na fii. mu ni lépp loo xamante ne bii xew na fii. Samba day ñëw. suñu baay Samba mii day ñëw. ànd ak Pape Fall. ak suñu baay Pape Fall. ñëw sa kër ga. ñëw ca kër ga. wax ma ko wax ko ko. ni ma xale yi kat. ma xale yi kat. diw mooy takk jabar. diw mooy jël soxna. diw mooy ngénte. diw mooy ngénte. wala diw wàññeeku na. wala diw wàññeeku na. yëf yi. yëf mu ngi noonu sa loxo. moo tax ni ko Pape Cissé waxee. moo tax suñu mag sëriñ Serigne si Cissé njëgën mii ni mu ko waxee. ñu bari ci xale yi. ñu bari ci xale yi. ñuy takk. ñii takk. bu takk amee. délégation bi. délégation bi. day ànd ak ñoom. ñu wax na suba la tabaski. bu ñu waxee ni suba tabaski. moom kenn ci xale yi. moom kenn ci xale yi. koo xamee ne jarom daa borom daa war a sëy kenn koo xam ni gorom daa war a sëy si wala. mu ñëw wax ma mu ñëw wax ko ko. ni ma ah, xat na de. ni ma ah, xat na de. suba la tabaski de. suba julli gi de. waaye sama doom bi waaye sama doom bii de. dañ ko may dañu koy may soxna. fële si boori Kelle. foofu ca boori Kelle. mooy fi Serigne Assane Kane dëkk. mooy fa Serigne Assane dëkk. ñu bëgg na mu sëy ñu bëgg mu sëy si. mbaaleen mbaaleen. koroog fa la ñu dem ànd ak mu ni koroog fa la ñu dem ànd ak délégation bi. ñu xaar ba seet ba pare. ñu xaar ba seet ba pare. ñu indi ko fii. ñu indi ko fii. nga former foyer. bu ko defee nga daal di former sa foyer. former sa njaboot. former sa njaboot. waaye doo demee ci kër tamit. waaye boo demee ci kër. dama koy waxtaan. mu ni toujours daf koy faral di wax ci ay waxam. bu takk amee ci eh, saal ba. bu takk amee ca saal wa. wala ñu yewal ma taax wala yooyu. wala ñu yewal ko taaxika wala yeneen. dafa xaw a reetaanlu nag. dafa xaw a reetaanlu. waaye lu am la. waaye lu am la. nga dem ci kër. nga dem ci kër. di ñaan jabar. di ñaan jabar. ñu dàq la. ñu dàq la. da ngay dem Amérique. da dem Amérique. wala Chine. wala Chine. wala Canada. wala Canada. nga wut fa ay bomb. nga wut fa ay bomb. sànni ko ci kër googu. sànni ko ci kër googu. ndax lan. ndax lan. ñii kat. ñii kat. liñ la xamal. liñ la xamal. ba mayuñu la jabar. ba mayuñu la jabar. bu ko ñëpp xamee. bu ko ñëpp xamee. célibataire ngay nekk. célibataire ngay nekk ba dee kon. kon. ku la may jabar. ku la may jabar. <laughs> mënoo koo fay. Ah, mënoo koo fay de. kon góor yi ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax. kon ah góor yi ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax. ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax. suñu bàyyi sàmba ñu ngi lay gërëm di la ziar. bi yàlla defee xale bi daal di am doom. nee na bi yàlla defee xale bi daal di mucc. fële ci hôpital bi. fële ci bi. la ñëw wax ma ko. ñëw ci moom mii dal di ko koy wax. ne yàlla demee nañu. njaboot. ni ko ah yàlla day mi dara teewul may ñu njaboot. waaye hôpital lañ koy tuddee. waaye hôpital lañ koy tuddee. bi ma demee. bi ma demee. Koroog délégation ñu ñëpp àndoon. nee na Koroog délégation ñëpp a demoon. ñoom Amadou. ñoom Amadou. Baydi. ñoom Baydi. ak yëpp ak ñoom Iboog Haji Malick. waaye bi ñëwee ba ci hôpital bi. nee na bi ñëwee ba ci hôpital bi. fi xale yi nekk. fi xale yi nekk. dañ dañ ne kat. sëriñ bi rek. sëriñ bi kese. moo mën a dugg moo mën a dugg. ñu waxtaan ceeg ñoom. ñu waxtaan ceeg ñoom. ñu ne kon sëriñ bi yeggal ci biir. ñu wax ma turu xale yi. ñu wax ko turu xale yi. ma demee. ma demee. fekk leen fañ tëdd. fekk leen fañ tëdd. ñu ne ma kii diw lañ ko tuddee. ñu ne ma kii diw lañ ko tuddee. Amadou. Amadou. Mbaay. Amadou Mbaay lañ ko tuddee. yal na dund. yal na dund tabaarkel. kii Ulay Mbaay la tudd. kii Ulay Mbaay lañ ko tuddee yàlla na dund tabarkel. kii soxna ndaat mbeng yàlla na dund tabarkeel mu daal di ñaan wa pare. mu tudd. tudd ci kattanu yàlla ci ñëw ci suuf ñëw ci suuf. fa lañ fekk um, soxna yi. fa fekk soxna yi. ñu waxtaan ak ñoom. kenn ku ne ci sa xol. Uh, ñu jàppee tamit bis la ma ko Samba wax. la ko baay Samba Mbaay mii wax. Ousmane tamit wax na ma ko. Serigne Ousmane Ndiéguène ma nga ca Gàmbi ànd ak suñu baay Serigne Ousseynou Ndiéguène ca gàmm ga nga xam ne mooy am Gàmbi mu wax ko ko moom mii. Ibrahima tamit na ba sama ma mu ni Serigne Ibrahima tamit ñëw na ba ca kër ga wax ko ko. moo tax ñu ngi ñaan yàlla xale yàlla dundal. moo ñu ngi ñaan yàlla suñu boroom xale yi yal na yàlla dundal leen tabarke leen. ca kanam kanam. ba ca kanam a kanam. Ah, mu ni suñu mag sëriñ Pape Sy sa njëgën mii. sama rakk la. mu ne rakkam la. ndax suñu baay ñoo ndax suñu baay moom sëriñ Muniru alquran mooy baayam kii suñu maam sëriñ daam njëgën mooy baayam seen ñaari baay yi bokk benn. boole ñu tuddee ko sama rakk papa Pape mu boole ko tuddee ko rakkam sëriñ Pape Sy sa njëgën. yàlla dafa def nag. yàlla dafa def ni. moom ak sëriñ Ousmane. moom ak sëriñ Ousmane mii borom daara ji. ak ñi ñuy àndal. ak ñi ñu àndal. benn lañu. benn lañu. lépp lu xew. lépp lu xew. bu kii ngant. bu kii amee ngant. ka ca des. ka ca des. mooy taxaw mooy taxaw. xam nga xew bii paase mu ni xew wi paase. ngénte bi paase. ngénte bi paase. Ousmane fii la taxaw. Serigne Ousmane fii la taxaw. sànni kaddu. sànni kaddu. waaye tey dafa am ngànt. mu wax mbokkam. mu wax mbokkam. teewal ma di mu ni ko teewal ma. mu ni ko teewal ma. mu ni su euh, suñu mag bay di mbaay ñu ngi lay gërëm. ñu ngi lay ñaanal yàlla. ñu ngi lay ñaanal yàlla. yàlla barkeel la te bàyyi la fi. képp koo xam ne famille mbaayeen la. mu ni képp koo xam ni bokk nga ci famille mbaayeen. yal na yàlla jàppale la. kenn ku nekk kenn ku ci nekk. li nga bëgg. yal na ko yàlla def. loo ragal yàlla boo ko gis. loo yootu yal na yomb. biñ gisee biñ ñaanee ba pare. nee boo gisee biñ ñaanee ba pare. ma ni mu ni imaam Mbaye Cissé mii. tëjal ñaan gi ñaan gi. imaam Alaaji Modou Cissé di fi nekkoon. Alaaji Modou di suñu baay bu fi nekkoon. mooy ñaan mooy ñaan. waaye kii rakkam la. waaye kii rakkam la. borom xam-xam la borom xam la. te ku sell la te ku sell moo tax mu ni ko tëjal ñaan wi. ñaanal xale yi. yal na yàlla jàppale leen. yal na yàlla dolli jàmm ci kër gi. dolli ko ci dëkk bi. kenn ku ci nekk li nga bëgg a xam nga ko ci sa xol yàlla la ko gën a jege moo la ko gën a xam yàlla ko yàlla def. loo ragal yàlla bu ngeen ko gis. yàlla lu ñuy yóotu yàlla nañu yomb. te ñu muurloo ko. soxna jaar tamit yàlla bàyyi ko ci kanam kanam. soxna jaara ñu ngi koy ñaanal moom it. soxna ah, suñu yaay. suñ yaay Aysata Ja ñu ngi koy ñaanal moom it lépp lu mu fi am yàlla ko yàlla barkel yàlla jàppale ko ak mboolem njaboot gi yëpp. gore yi tamit yàlla jàppale leen. jàppale seeni borom kër. wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد ndax ndax seen yaay dafa baax seen baay dafa baax yéen tam da gën a baax yaru am sutura ami teggin yéen macha allah tubaarkalla ba ngeen xamee sama kër du tey da ngeen a yow sama kër di def man ba mu neex yéen ak seen i ak Ibou Mbaye mi nag taalibe Sëñ Babacar nag bëgg seexal xalifa nag man man mi damaa naqaree defar Ibou Mbaye dékku nañu ñun ñëpp wallaahi Ibou Mbaye dama yëkkati sama yére mu ñawal ma ba mu baax Ibou Mbaye da yëkkati xaalisam di ma ko jox boole kaf ak nit ki mën koo bañ a defal dara sax mais jàmm ak salaam bokk ko mayee rek na lépp te Ibou dafa baax seexam yi yàlla na dema dema dema dema dem ba lu lépp lu kawe njortam yàlla na ko suñu borom defal bàyyi ko soxnaam bii moom itam ñu yàgg feete daal lu yu bëree bëri jërëjëf ay Van Ndiaye ñoom ñëpp yàqu ñoom de mënu ma ne ku mu lim juum doom yi bu jigéen yàquñu ko maa ngi leen di ñaan ci bis bi yàlla na ko jàmm salaam dara jël mënu maa wax nag ay sata ba ma ñëwee fii ci sa ci sa lompul gi man oo ci ci fii man la fi fekk man dong ma nekk fi xale may boddu bay di mbaay suy demee marché man lay bàyyi bay di mbaay bay di mbaay loolu xam moom it bàjjen am ñaw sol la day ñaw am ñaw fi nekk ba lompul damay indi sama am ñaw jox ko bay di ma ñawal ma ko mënoon na maa wax ne bàjjen wañ gi daa seer lépp dafa seer ma courant bi dafa seer waaye waxul loolu maa ngi ñaan ci waa kër Aïssata yal nañu yàgg ci yenn di yàgg te maa wax sax soo waxee daal ñi da dee ko de moo jàll macha allah ñoo ngi la yàlla di julli bi tedd bi sallallahu Ibou Mbaye mi nga xam ne tey moo moo waral bis bii la dañ koy tàmbalee sax ci Samba papaam ak ay di yaayam ndax lépp ñoom la man ni lépp Aysata la ak Samba Mbaye ñoom la ndax Aysata tubaarkàlla mu ñëw ci koñ bii man dama ñëw fekk leen fi fekk fi Ndey Njaay ak waa koñ bi ñëpp tubaarkàlla ñu ànd ñëpp bokk ndey ak baay wax dëgg yàlla ay sa ta aye tey nag ku ayewal moome waaye ñëpp a baax man ñëpp a baax ci man baax ci ñun waa koñ bi daal macha allah laaw la cat ak seen waa Njaga waaw wax dëgg yàlla waa kat ay sa ta nag macha allah Ibou ji waaye ñun ñëpp a baax te yam ma tàmbalee ko ci béy béy ji mi nga xam ne mooy taawa béy ji baax na yaru na macha allah respecté nañu ni joxe oh nañu waaw ba ci Fatou Mbaye macha allah laaw la cat ñi ci des barkalla. dama doon lay baax ñu ñëpp a bu mbaay nag moom macha allah xale bu baax bëgg ñëpp am na yëg am na respect ñoom ñëpp a baax ba ci kii nu mu tuddati doomu jëkkëru Anta nu mu tuddati allah moom waaw ñoom ñëpp a baax di ñaanal daal li bëgg yàlla na leen ko yàlla defal Ibou Mbaye macha allah xam yàlla na dund taxaw ci barke koo fay ndax lii lépp moom la ndax tey bu ko neexoon bu mu ñëwee ci koñ bii ñëw bokk ñëpp ndey ak baay ne mënoon na ni kat man kat bokkuma ak ñii dara daal seet sama yoonu bopp waaye Aysata deful loolu Aysata dina waxtaan ak ñun dina diisoo ak ñun balaa def dina ñu laaj buy dem yóbbu ñu lu mu am bokk na koog ñun wax dëgg yàlla ñoo ngi koy ñaanal daal li mu bëgg ci njabootam moo ko xam yàlla na ko yàlla defal ci barke Seydina di ko ñaanal ci njabootam bi lépp lu mu séen ci njabootam bi yal na ko sama borom defal dañ fekke ko te tal ko ndax ma doon naa soppiku mbaam mel ne neen waaye ni meloon démb noonu la mel tey ba démb njabootam gii yal na yàlla def barkeel kii di doomam kii di borom seex yal na dund ak jàmm ba seexam yi ko muurloo am ñu koy ñaanal yàlla ku lim da ngay waaye daal lu baax rek lañ xam ci moom kon nag lu baax rek lañ koy yal na eggaleeg sa bopp ci kàttan yàlla ah, bis bi xanaa ginnaaw bu ñu sante yàlla rek gërëm waajur yi xam nga ñi nga xamante ne ñoo waral lii nii xam nga ñoom lañuy sant gërëm leen ñaanal leen yàlla may leen gudd fan ak wér ñu yàgg a teewee lii nii daal parce que lii moom doon na loo xam ni maanaam lu neex la si xol lu neex la si dëkk tamit lu neex la si ànd parce que sama waaye la moom mii sunu ànd dafa yàgg du du tey démb la woon tey soog a ñëw bi ñu doon ay booy ndaw lañ doon ànd xam nga mën naa ne booba ay dix ans lañ am di ànd di ànd ànd ba heure bii nii ànd bi nag doon loo maanaam yàlla suñu borom def na sutura ba lii nii fekk ñu si mu doon loo xam ne maanaam ah bu si seytaane mënoon dara comme heure bii nii duñu mën a dajawaat fii ba kenn ku nekk di mën a wax sa morom dara waaw vraiment moo tax daal Ibou moom sama waay la daal sama waay la ni ko ñëpp gisandoo ni ko ñëpp déggandoo mooy kii moom mooy man maay moom vraiment benn lañu wax dëgg neex yàlla waaw bisam bi nag ah maa ngi koy ñaanal yàlla suñu borom yàlla sàmm ko sàmm njabootam mu yàgg a nekk papay seex yi wala joor dina la wax si man loo xam ne nii sa waay boo ma bu fekkente ne xamoo ma woon di ma xam bu fekkente ne tegoo woon ku man di ma teg ku man parce que man ni mbër mbër lu gi gars yi doxee dama ko doxewu man dama doon nit koo xam maanaam nit ku simple la su ma la rombee dem sax doo ma teg champion da nga naan moo kii amul doole wala kii du dara mais boo tàmpali koo ak man da ngay xam ne kii champion la moo tax man nekkuma fii di wër si ay média wala ay rajo wala ay détail di laaj ay mbër ak yooyu. billaay wallaay si jaxate promoteur boo demee këram nga ne ko ban mbër moo la gën a noppal si làmb boo deful naay dina leen la jorde dina sama saal bi mosu fee ñëw ñu jox ko mbër ba mu wokk doog mosu dugg si géew di pat pati wala muy tricher loolu duma ko def. sama combat bi passé boo leen gisee li tax ma ñëw téye sama bopp billaay wallaay bi may génn fii dem dama ni waaju ma demee dama koy dóomu waaj parce que maa ko mën foofu mais dañoo ñëw ba biir làmb ji rek kilifa yi dar ma bul dem bul dem taxawal taxaw loo tax ma taxaw mais xam nga ni kooku ku daan taxaw ñu ko gën a diis fuuf di kaw kooku man jaaxuluma billaay wallaay moom mii sax ma mere woon ni ma lu tax si kawam ma ne ko déedéet gars yi ñoo naa taxaw bëgguñu ma fat affaire yooyu loo tax ma taxaw mais kii moom damaa bëgg nit ñi xam ni man ak moom ñoo bokk ndey ak baay parce que nit moom bu la jukkoom doyul doo ànd ak moom jukkoom dafa maa doy sama waay la ibu musumaa wor ibu musumaa wor am naa fi xarit bu ne ñii jaay nañ sama ngemb man du ma man dëgg dama ko nëbb ñii jaay nañ suma ngemb bàyyi joom jigéen mii duma bàyyi ma fenn su doom bàyyi goon la yàgg nañ trop duma bàyyi ma fenn ñii jaay nañ sama ngemb ñii jël nañ lu bon def ma ko mais kii musuma def lu bon musuma koo tamit wax te fu mu fekkee fu ñu ma koy defee musumi mbubam xataraay waaw vraiment man daal dama kontaan si moom mi kontaan si famem kër gi tamit musuma fee dugg bañ wax ma dara lu ma naqari musuma fee am xaar na yàlla dëgg na yàlla ndam rek laa fi kii daal macha allah di gërëm ñëpp. yooyu la ngay tàggatoo sa kàddu bu mujj. waaw li may tàggatoo mooy maanaam di ko sant rek di ko ñaanal yàlla bu baax. Mhm. di ñaanal bisam bii képp ku fi teew ren ah bu ne yàlla def ñu teewaatee ko nii si beneen bis wala si bisam encore parce que nit ku baax la waaw nit ku baax la te moom xam nga moom dafa ko lu baax yàqul lu baax Ibou mii dafa ko lu baax yàqul lu baax maa koy sant di ko gërëm di sant ñoom ba Mar baay Baye Diop Ibrahima Njegéen doomu baay Gool Njegéen ñu ngi koy ñaanal di ko sant bu baax di ñaanal waajuram bu góor bi comme ni ma koy waxee rek lu ma mel bàyyi la bàyyi góor moom vraiment moo fekk fu dara nekkul mu def fa dara man loolu du ma ko nëbb képp koo xamante nag danga siy gis sa bopp ah yow la rek mais bàyyi góor moom moo fekk fu dara nekkul mu def fa dara parce que avant may xamante ne bàyyi góor xamante woon naa lu ma téeméeri góor yàlla yoo xamante kenn ku si nekk dañ naan yow la yow la yow la mais munoo si man dara ñenn ñi sax dañ ma daan nëbbatu wala di ma daw kon tey buñu nekkee nii day xam boo gërëmee bàyyi góor wala gërëm njabootu bàyyi góor ñii gis seen bopp di mer seen i xool di mer ak yooyu ñoom la rek man Baye Gol laay wax si kaw ñëpp di ko dégg ragul ma dara Baye Gol njigéen góor mag góor mag man moom laay wax amul lu may tiit amul lu may ragal. su ma mee combat bàmmeelam laay dem tubb si suuf si xëppoo ko wala ma def ko si ndox sangoo ko ñëw jàkkaarloo yow doo ma doo doo ma saaga te lu ma la wax loolu ngay def man du ma ragal damaa bëgg gaa yi xam loolu ñetti penc yi fii ragal am fi kii nag tey mënumaa aalu parce que bis bi tey laaju aalu mais beneen yoo ne incha allah rabbi dinañ xam ne may kan kii nag sama baay la maa koy ñaanal yàlla